société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec li coow liy bari bari ci élection présidentielle bi ñu mal réew mi quotidien nee na Macky Sall yor cëggal guy gi maître du jeu nii la ko yéenekaay bi tuddee tuddu candidature yi fës ci biir Benno Bokk Yaakaar te Macky Sall di xool bu ca ne naka la cay tegee loxo yéenekaay bi ne bu loola tegee boorit bu leen fàtte ni Macky Sall teg na loxo ki gënoon mën a sonal Benno Bokk Yaakaar te mooy Ousmane Sonko Sonko mooma Walf Quotidien nee na gaayam jàmm la nu woote drapeau blanc la nu yëkkati ngir bëgg Ousmane Sonko moom boppam génn ca kaso ga mu ne waaye it mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 ña ca fas yéene bokk te bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar Vox Populi nee na Macky Sall a ngi leen di dànkaafu ci biir yéenekaay bi Macky nee na képp ku àndul ci Amadou Ba mi nu tànn mën ngaa jàpp ne yow bokkatoo ci sunu coalition bokkatoo itam ci sunu parti te kenn dàqu la nag yaa ca génne sa bopp kaddu yu muy bërelaat ci biir Les Échos ne képp ku fas yéene samp saw ndënd jàkkaarloog yow moom APR bokkatoo ci Macky ma nga naan leen itam nguur gi moom xam leen ne bu nu ko ñàkkee musiba mbàbba kumba lay doon li mën a doon musiba kay ci amadu Ba l'évidence nee na mooy lëkkaloo gi xeeñ diggante John Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao le ne ko booba lëkkaloo kay yemul ci xeeñ daa mel ni togg nanu ko ba mu ñor yàq doo nga ci des nii lanu yénekaay bi yëgalee ndaje mi dox barki dem xaaja guddi diggante Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille bu nu àndee beneen APR lay doon ci gët yénekaay bi waaye wute na ak be ndax bii la regard nga ko tuddee alliance alliance la rébellion maanaam ànd fippu kenn ci ñooña fippu Mouhamed John moom la laas xëy di càmbari mbiram ci wàllu sincérité maanaam dëggu ci politique ak doxal lu leer nañ sa diggante ki ngay àndal laas nee na dafa am ci lu mu aju muy luwaay yote à variable tey mun naa mel ni suba mu mel neneen Macky Sall moom waxul leneen lu dul amadu Ba laas nee na ca campagne ba mu nekk ca Amérique ma nga naan gaaya bu kenn ñëw wax leen beneen candidature ba ngeen jàpp ko benn candidat laa am moom it la bennoo am te mooy amadu Ba professeur Amsatou Sow Sidibé mi bëgg a doon candidat booba jamono ca 24 heures ma ngay càmbar Sénégal ak tolluwaay wi waaye itam yorin wi gën a teg gëtam nag ci ndawi réew mi kenn ci ndawi réew mooma di Pape Djibril Fall ci booba la yéenekaay ma ngay ñaawlu wér-gu-yaram ni muy doxee ci Sénégal ne ministère de la santé moom daa mujjee sax doon ministère des maladies maanaam dafay yokk feebar askan wi Pape Djibril Fall ñu fekkati ko ci Vox Populi muy yokk xar mi karaw ci coowal parrainage gi yëkkati ay tuuma teg ci kaw farandoo nguur gi ne gaay yi ni nuy wutee parrainage du dëgg du yoon ndax parrainage candidat indépendant yi booba jamono Dakar Press ne ñu Souleymane Ndéné Ndiaye candidat la bëgg a doon ci élection présidentielle bi nu dëkmal premier ministre Abdoulaye Wade ba woon ñëw na dooleeku ci lim gu takku candidat déclaré yu ñu jotane meeku yéen bi xayma ko ci lu ëpp juróom benn fukk loola tax Walf Quotidien ne mu gaa yi lu nuy daw bay daanu ana lu waral ñépp bëgg a doon candidat docteur Abdou Khader Sanoko indi tontu li ne arnak njuut ne soxna yi fauteuil présidentiel bi ci boppam lan song bëgg ko foqati te taxaw temm lanu def réew mi quotidien di nu yëgal ne Macky Sall mi bëgg a def remaniement fii ak bi nu dëkkmal joyanti di réglage yu mujj dimanche bi la ko fas yéene amal démb ci àjjuma ji amal nañu ndaje mu yaatu jëm ci njàng meek njàngale mi rawatina ak école bi war a ubbi le soleil nañu fukki dogal ak juróom-ñett moo ca génn te li gën a jàmp nee nañu mooy xeex mbënn mi ñàkkum jàngalekat yi ñàkkum table bon ak jumtukaay yi ndongo yi jàngee waral sud quotidien ne nguur gi farlu na ci ubbiteeg école bi yëgal ñu it fukki dogal ak juróom-ñett yi nu jël fukki dogal ak juróom-ñett yooyu moo waral l'observateur jox l'école bi mu dim numéro d'urgence nii la nu dogal ya génn démb ca conseil interministériel bi ñu jagleloon wàllu njàng meek njàngale mi ne ñu ca moomale ndaje it way jur yeeg syndicaliste yi béral nanu seenuk njàqare ñeel frais de scolarité yi maanaam la fay te jàpp ni dafa cher lool enquête ne man dama tiit ci l'école bu Sénégal bokk na ci li ko waral ñetti téeméer yi nekk ci jafe ba daanaka kenn mënu ne gàcce la ci Cheikhou Oumar Anne waaye Amadou Ba Direct News nee ma ngay lali pexe ngir njàng meek njàngale mu mucc ayib sàkku na ci gouvernement bi ñu def seen kéemtalaayu kàttan ba doomi réew mi yépp jot ci njàng mu mucc ayib PDS dox jëm ci parti bu mucc ayib ngir àgg ca l'indépendant nee na ña nga yeesal seeni bànkaas laata élection bi nu dëgmal ñii élection tegu ci seeni réew te nu jiite ko di militaire ya falu gannaaw coup d'état ca Mali Burkina Faso ak Guinée Dakar Times nee na ña ngay defi njombe Traoré jaay na ko ci fanweeri milliards Assimi Goïta moom contrat wub juróom ñaari milliards la joxe Mamadou Doumbouya roppi ñépp takk répp ci coowal ñeen fukki milliards ak juróom ñaari milliards yu teg le wéef di sàkk poste finance fay ko ko waral mu yóbbu ko ca kanam tribunal du commerce libération mi nu ko yëgal dolli ci ne wéef a ngay tuumal poste finance ne dafa def ay njuuj njaaj buy nuro banqueroute frauduleuse woowale jamono ñu teg loxo ca France enquête bi yéene bi nee na def na ñaari at te dugal nañ ci Interpol ak Europol le quotidien dugg ak ñun ci gox yi ami géej làqat ci seeni jafe-jafe bokk na ca coowal suuf ñàkkum jën tax ndaw ya dugg gaal yi wutali bitim réew seenu ëllëg lëndam lool ci gëtu yéene yu ma jàmbal jaañ bi bés bi xëy dellu si ci li daloon ma kundul te dal soxna yu bari moo yàgg cib sëy te amoo doom dépression sociale ni la ko tuddee yeggee ñu ay seedeey daw yaram yuy firndeel ne réew mi ci boppam moo wopp ay mbër wopp wopp nañ fi bañ a l'observateur mi nu ko yeggee ne CNG moo ko fësal joxoñit ñeenti mbër yoo xam ne daanaka tuuti ñu dàq seeni combat ndax sukkandiku ci faux documents médicaux maanaam danoo lijjanti ci seeni këyit yooyu wane ne seen wér-gu-yaram daa tagga témbe ba mu jar ñu dàq seeni combat kenn ca ñooña ngir am repos médical dafa dem ca kanam docteur ni moom maçon la imaam bi moom bu dul woon police ma ko génne ca mbooloo ma l'observateur nee na caaf dana xam xutba ba mu def ca wàqinaan na koo jural musiba ndax ñépp a jóg bëgg koo song takk der yaa ca jàpp seppi ko yóbbu lu